ñu jàll si gendarmerie. waaw ñu ngi gis euh, le colonel Cheikh Faye moom mooy euh, chef de détachement de la gendarmerie euh, nationale moom mi nga xamante ni mooy commandé légion de gendarmerie d' intervention. juste si ginnaawam mi ngi ànd ak sa garde le drapeau de la gendarmerie. derrière. damay damay fàttali colonel rek ni xale yi Pape Makhtar Sow ay Khady Ndiaye Bey ñoo nekkoon ci oto yi Pape Amadou Diaw ay Mbaye Fatma Kébé Kébémer ak euh, Daouda Almayi Koulibaly et Awa Sow. voilà ñoo soloon. Ibrahima le groupement motocycliste créé en Euh, nekk une unité de la gendarmerie mobile sous euh, les ordres du chef d'escadron Diène Gaye di wax ni cette unité moom mooy euh, def les missions d'escorte et d'honneur au profit de monsieur président de la République di ko defal premier ministre président de l'Assemblée ak yeneen autorités yi nga xamante ni ñoo ñëw Sénégal en visite ñoom dañuy def aussi ay mission d'escorte ak de convoi. ñooy escorte président. ñoom ñooy escorte président ñu ngi basé wu caserne Samba Diéry Diallo tey jii y a 55 motos qui défilent. benn bu ci nekk am na ay puissance 1200 chevaux beneen bi 1250 chevaux. te ñoom dañu yore ay fetal mën nañu tirer ay bal wala. waaw loolu yëpp dañ koy jàngat jàngat la donc euh, ils sont entraînés pour ça ils sont entraînés pour quand même intervenir lors de leur mission. alors là on est en train de l'arrivée de la légion de gendarmerie d'intervention. qui est commandé par le colonel Chapay nekk une unité de réserve générale li nga xamante ni nag moom moo si am euh, solo c'est de rappeler que la LGI a connu une réelle montée en puissance et compte aujourd'hui 16 escadrons sur un objectif de 18 escadrons articulés en trois groupements de maintien de l'ordre qui sont réversibles en mode combat euh, en mode combat dont trois unités blindées Alors, dans son, dans son évolution, voilà, la LGI est passée d'un escadron blindé à un groupement, à trois escadrons blindés, équipés d'engins, de bastions, daguerres, Yacine et de Cobra 2. Okay. L'unité est placée sous les ordres du capitaine Modoubaï Kamara, qui défile en double version aujourd'hui, en version maintien de l'ordre, mais aussi en version défense opérationnelle du territoire. Le premier escadron Bidiromni, euh, il défile en format maintien de l'ordre et défense opérationnelle du territoire avec des engins de type Daguerre et Cobra 2. alors le Daguerre dafa nekk engin boo nga xamante ni français yi ñoo ko defar ñetti servant lay jël euh, moom benn pilote benn chef d'engin ak benn tireur moom dañ ko defar exclusivement pour le maintien de l'ordre mu am autonomie 700 kilomètres Euh, ba pare ñu équipé ko ak lance cougar boo nga xamante ni dafay mën a tirer douze grenades en même temps. danaa ay blindé la ñuy deuxième escadron bi. nuyu Mamadou Moustapha Diallo ak Ramatoulaye Witon Sarr ñoo doon xale yi. voilà yegg si oto euh, deuxième escadron bi mi ngi euh, défilé en format maintien de l'ordre avec des engins blindés de type Yalcin nga xamante ni Turquie ñoo ko defar moom aussi capacité d'emport am neuf militaires lay def si biir. am na autonomie de 700 kilomètres et nekk un engin boo nga xamante ni day jàll gee donc ndox mi bu bëree ba 1 mètre na ko romb euh, boo leen xoolee nii jàll ñu ngi ko équipé benn euh, arme lourde boo nga xamante ni du set la euh, mën na jël aussi yeneen type d' arme maintenant bu mujj bi nga xamante ni mooy troisième escadron bi moom moom mooy défilé ak engin yi gendarmerie mujjee jënd muy le Cobra 2 Ah. waaw Cobra 2 bi ñoom ñi ngi défilé en défence opérationnelle du territoire mu nekk ay engins yoo nga xamante ni euh, Turquie ñoo ko defar benn bu si nekk dafay jël lu mat neuf militaires euh, mais seen puissance moo am doole benn bu si nekk am nga puissance trois cent soixante chevaux c'est des engins yoo nga xamante ni seen autonomie sept cent kilomètres la mais li si am solo mooy engins yi bu amee tàkk-tàkk ñoom dañ koy détecter automatiquement fay ko automatiquement. ah oui waaw donc dafa am système de détection et d' extension d' extinction automatique des incendies. bi la ñuy yem wala mën nañu nekk si frontière yi wala dañuy nekk dañuy nekk également si si àll bi. voilà au niveau boo les deux versions. Hmm. dañuy mën a nekk en maintien de l'ordre mais nga mu leen yóbbu aussi pour des opérations de combat. Hmm. loolu mooy importance su engin blindé yi nga xamante ni moom la moom la gendarmerie yore actuellement. Hmm. ñi nga gis ni c' est les Cobra ñoom euh, dañuy dem si àll bi bu leen dañuy def opération maintien de l'ordre déjà mooy li ma doon wax léegi nii ñoom ñooy fay bu amee tàkk-tàkk si kaw tali bi mais boo ko bëggee da nga koy yóbbu si àll bi mu nekk encore euh, bokk si li nga xamante ni mooy xeex bi au côté des armées. et la légion gendarmerie d'intervention gis ay toman yoo xamante ni jàll nañ fii mooy oto yi nga xamante ni ñoom ndox la ñuy génnee pour éloigner li nga xamante ni mooy manifestant yi euh, ñoom bu ñu rombee nag. li siy tegu mooy version portée bu LG yi version portée bi ñoom dañ leen a dugal si ay oto yoo nga xamante ni euh, ay Iveco man Iveco la ay minibus ñoom di euh, ñuy wax capitaine Aliou moom moo nekk si kanam euh, mu nekk ay oto yoo nga xamante ni ay minibus la mais version 4 x lay dawee waaw yooyu aussi on les a conçus exclusivement pour le maintien de l'ordre benn bu si nekk mun nga jël lu mat euh, fukki nit ak juróom-ñaar euh, yoo nga xamante ni ku si nekk day yore sa équipement complet donc mu nekk oto yu bees yoo nga xamante ni euh, yu am solo la pour le maintien de l'ordre bu si nekk aussi dañ koy monter li nga xamante ni mooy trappe de tir mhm. trappe de tir mooy permettre ñu mën a nekk ci nekk si si biir mën a lancer ay grenades pour mën a tenir à distance bu fekkente ni dafa am ay manifestants mhm. ñoom ñoo jàll nii ah. ñoo ñoom ñooy ñoom ñoo jàll léegi. ñooy nekk di jàll nii waaw ah, ñoom ñoo nekk di jàll. Euh, si seen ginnaaw ñu ngi si am li ñuy wax la section film Cinofil Cinofil moom la ñuy woowee Cinogroupe euh, moom la ñuy yàgg di tuddee Cinogroupe. mu nekk unité spéciale boo nga xamante ni ñu ngi bokk gendarmerie mobile. Euh, ki nekk si seen kanam tudd capitaine Pape Chrysogone Mendy. Cinogroupe nag seen particularité. boo xoolee ba léegi nii euh, version porté bu LG yi moom mooy jàll. Mm-hmm. mooy oto yi ñu doon wax léegi. Mm-hmm. mu nekk oto yu am solo yoo nga xamante ni dañ ko équipé si biir defar lépp pour exclusivement transporter euh, des éléments au maintien de l'ordre donc mu nekk oto yu am solo di remercier euh, autorités yi nga xamante ni ñoom ñooy accompagner équipement ak modernisation moyens d'intervention yi yi gendarmerie nationale amee. donc ñu ñëw léegi si ki nga xamante ni moom la ñuy euh, moom la ñuy tuddee créé en 1979 déjà mu nekk euh, section cynophile depuis 1979 ñu créé leen euh, teg ko si sous les ordres du capitaine Pape Chrysogone Mendy ñu yore ay xaj yu bari des bergers des des spanners bockish euh, mu nekk ñu am solo euh, chiens yi nag ces chiens sont orientés dans la recherche d'explosifs dans la recherche d'armes de stupéfiants les bombes et cetera un chien de garde patrouille également et sa version principale euh, sa vocation principale est la lutte contre le terrorisme moom loolu moo leen tax a jóg hmm. la lutte le trafic illicite de drogue mais le grand banditisme aussi unité bi nag ñu ngi ko basé fële ci LGI Mbao mooy caserne générale Wali Faye mu am aussi yokkute bu am solo euh, parce que euh, gendarmerie nationale daf si créé li ñuy wax benn centre de cynotechnie mhm. centre de formation boo boo nga xamante ni euh, il a été créé avec la coopération allemande mhm. di former ay nit ñu bari si mbirum yar xaj ak xaj yi nga xamante ni ñoom ñooy def suñu liggéey elles sont implantées elles sont implantées à l'aéroport waaw actuellement actuellement am nañu benn unité canine boo nga xamante ni mi ngi nekk aéroport Blaise Diagne international Blaise Diagne euh, ñi ngi préparé aussi pour installer benn euh, unité canine au niveau de Touba Fall mais aussi à Mbour ah. li si am solo mooy euh, ba sa cëppaandoo ga légion de gendarmerie bu si nekk dangay ngay am benn unité canine bu lay jàppalee si liggéey bi. parce que ngay wax ci aéroport bi am na solo xaj yi di fa yi ni mel di fa nekk parce que aéroport international Blaise Diagne c'est l'un des meilleurs aéroports d'Afrique on l'a dit récemment mm-hmm. avec euh, les équipes d'Abdoulaye euh, et le ministre de, des Transports aériens de Douka. mais ñii dem naa foofu ak waa douane. Mhm. ànd ak gendarmerie si mbirum fret bi waaye gis naa xaj seen liggéey lu ñuy def. c'est extrêmement important c'est également bien de souligner que ces chiens sont transportés dans des véhicules spéciaux dotés d'équipements de couchage, de groupes électrogènes, mais aussi d'une réserve d'eau de 200 litres pouvant assurer une autonomie opérationnelle de 6 jours à l'extérieur de leur base. Wow. Donc, nous avons dem liggéey am fa lu mat juróom-benni fan di def seen liggéey sans avec une autonomie opérationnelle hmm. loolu dafa am solo pour que ñu ñu ñu souligner ko boo xoolee gis nga groupe électrogène yaa ngi nii ak yaa ngi noonu ci biir oto yi moom mooy oto yi nga xamante ni lépp li ñuy soxla mi ngi si biir bu ñu génnee tey mën nañoo def juróom benni fan si biti te duñ soxla dara ñii di ñëw nag ñooy section spéciale waaw xaj yu doy waar la xaj yu doy waar la c'est très important exactement important waaw kii ñu gis nii di ñëw moom mooy lieutenant Aïssatou Cissé Diagne moom moo nekk si kaw section spéciale chargée de la protection de l'environnement muy unité spéciale bu am solo boo nga xamante ni thème ren bi li ñu si wax mooy protection des ressources naturelles ñoom dañ si jouer rôle bu am solo seen mission c'est de lutter contre toutes les formes d'agression de l'environnement notamment l'extraction illicite de sable marin waaw ñu koy tàccu elle est diplômée jigéen la mm. euh, plongeur la day def plongée sous-marine euh, nekk mécanicien am loolu taxawaay bu am solo si section bi nga xamante ni moom la nekk si kanamam ñoom ñoo nekk ni di jàll ñoom dañuy liggéey si lépp loo nga xamante ni mooy euh, pollution marine bu terrestre pollution atmosphérique pêche à l'explosif boo xoolee aujourd'hui li bon luy dugg si géej gi lépp loo xamante ne day dugg si géej gi waaye ñoom seen matériel yi doy na waar waaw actuellement nii euh, il défile avec des vedettes d'intervention rapide de et chevaux qui sont longues de mètres pour l'action en fluvio-maritime euh, mais aussi en milieu fluvio-maritime mais aussi la section dispose d'une équipe NRBC boo xoolee mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy intervenir ci lépp luy produit chimique produit NRBC composé de personnel chimiste de physiciens aussi qui interviennent particulièrement dans des zones contaminées ou présentant des risques ou menaces NRBC à l'image des sites clandestins d'orpaillage clan euh, d'orpaillage de da ngeen parce que lii. Ah. am na solo ay moo leen di permettre mën a intervenir si zone bi nga xamante ni dañ ko contaminé wala yu mel noonu. moto yi ñoom ñoo ñuy permettre ñu mën a def la surveillance des plages moom la wax les les donc littoral bi yëpp moto yu mel nii lañ fa yore pour mën a def des patrouilles parce donc c' est pas adéquat ñu yóbbu fa ay oto donc loolu moo tax. Euh, ñu fa yóbbu yi. les 700 euh, kilomètres de voilà may profité aussi ci occasion bi di res nuyu sunu naataayoo yi nga xamante ni euh, waa Saint-Louis ñi nga xamante ni ñoo nekk Misega ay ñoom Touré ñoom Camara. mooy sunuy xarit yoo xamante ni sama ñoom xarit yeneen yi Arona Sarr ñi nekk Centrafrique ñi nekk Congo. Mhm. ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu ñi nekk Mali. donc c' est vraiment pour euh, di xalaat bu baax xam naa ne ñoom aussi ñu ngi seetaan di euh, bëggee ak ñun ci li nga xamante ni mooy suñu fête euh, suñu fête nationale. ana waa drone yi borom drone yi. waaw ñoo nekk dañoo am dafa drone xaw na wuute ci unité bu bees la boo nga xamante ni dañ koy soog a teg l' escadrille de drone d' appui de la gendarmerie est une nouvelle unité. de la Légion de gendarmerie de l'air et des transports aériens. Il est placé sous les ordres du capitaine Medoun Elle est rattachée à la section aérienne de la gendarmerie nationale et est compétente sur toute l'étendue du territoire. Donc ñoom fépp ci Sénégal la ñu mën a l'escadrille est composée d'une section technique et d'une section opérationnelle composée de personnel navigant, d'électroniciens, d'informaticiens, de transmetteurs, mais aussi de télépilotes. Mm. Elle a pour mission de soutenir les unités engagées au sol, non seulement dans la recherche du notamment dans la saturation entraînante des zones tenues par les manifestants à partir de la troisième dimension. li ñu si bëgg a si signaler aussi mooy l'unité dispose de plusieurs types de drones destinés soit au maintien de l'ordre soit à la surveillance opérationnelle de moyenne et longue portée couvrant des rayons pouvant aller jusqu'à 120 km. 120 km la drone yi di dem 120 km drone yi daf koy dem. téeméer ak ñaar fukki kilomètres yi pour surveillance la yenn yi pour ay lance-grenade la. mais mais surveillance drone buy lancer grenade. day yi ngay gis nii dañuy ñëw mën nañu dem ba tim euh, manifestant yi sànni fa ay grenades donc continuer def seen liggéey de surveillance. man de gis naa ay drone yu béy yu arrosé. ay tool fële incubateur bu Mboro bi. Euh, ak professeur Aïssatou waaye doon buy sànni grenade waaw ñoom dañuy sànni ay grenade yi bu nekk unité bu bees tax boo xamante ni ngeen di nëbb bëri na lool waaw nëbbatu mais lu nekk ak waxtu bi mu war a génne ah, donc en tout cas ñi ngi remercier le haut commandement si liggéey bi nga xamante ni mu ngi koy def pour accompagner euh, les personnels si euh, liggéey bi ñu leen dénk di leen ko yombalal di leen ko yombalal di leen euh, jox les moyens qu'il faut di ko moderniser nag aussi. mais dañoo bëri sax ah. je vois les les yeux de Moustapha Ndiaye. waaw qui peuvent scintiller ah. waaw parce que lui il aime tellement les drones mais. waaw des drones d'une telle capacité. Euh, amaguñu ko quand même am na si am na si dix unités yoo nga xamante ni benn bu si nekk dafa autonome. mais lii dafa laaj formation il faut que insister si loolu parce que lii capital ay nit ñoo koy doxal. formation bu am solo ay nit ñoo koy doxal. boo boo xoolee seen biir am na ay personnel navigant am na ay électroniciens am na ay informaticiens. am na ay transmetteurs mais aussi des télépilotes. et ça c'est important ñii nag ñoom ñooy détachement sécurité routière. mooy ñoom euh, capitaine Malick Faye moo nekk seen kanam. Euh, ñoom elles sont cette unité est destinée à préparer les personnels spécialisés dans la gestion de la sécurité routière. ah waaw ils sont implantés à la caserne générale Waly Faye de Mbao. et le centre va accueillir des personnels civils comme militaires, nationaux comme étrangers, euh, d'être formés à la conduite automobile, à la conduite mais aussi la sécurité routière. Donc sa mission consiste à promouvoir la sécurité des personnes et des biens sur les axes routiers, de protéger les infrastructures et les moyens de transport et de limiter les risques d'accidents sur, les, sur la circulation routière. l'autoroute, ils ah. sont boo il euh, y a une bonne politique de